mooy bopp saaru suuratul ahqaaf ahqaaf nag palaas la ci yaman nekk aw xuur woo xam ne nit aad foofu lañ dëkkee woon yàlla yónni ki ñoom yonantu bu ñuy tuddee huut moom nga jàng ci biir saar wi mu ne wadkur axaa aadin id angdara qawmahu bil ahqaaf baat boobu mu tudd nag moo tax mu tuddee ko saar wi muy tuddee lépp rek ci turu lenn saar wi di laxqaaf mooy xaamim gi njëkk ci xaamim yi boo commencé ci xaaj suuf bi mooy xaamim gi mujj ci xaamim xawaamim yi boo commencé ci xaaj kaw ba lu ci mën a am Makka la wàcc ñetti aaya rek ñoo ci wàcc wàcc madinatul munawara wasbir a sabara ulul azmi ba la bokk wa wasayna al insaana bi walidayhi ca la bokk madina la wàcc araaytum jooju muy wax ca kanam in kaana min indillah wala in kaana min indillahi loola tamit madina la wàcci saar wi yëpp boo ko calculer aayaat yi fanweeri aaya la ak juróom soo calculer xarafam yi ñeenti téeméer la ak ñeent fukk ak ñeent muy 644 soo calculer tamit maanaam baatam yi kon mooy mooy mooy maanaam soo calculer xarafam yi dalay jox deux mille six cent quatre-vingt-quinze kon fanweeri aay la ak juróom juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak ñeent la ci ay baat ñaari junne la tabaarakallaahu ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay xaraf muy deux mille cinq cent quatre vingt saar wi nag day wax rek li waa Makka seen saaree fa wàcc la muy wax dana jàngale ci wàllu pas-pas jàngale ci alquran nag lottuloo gim lottuloo mboole mindee fi yàlla yi dana wax ci wàllu dee dana wax ci wàllu dekki dugal na ci ñetti ay yi ma dina nag yooyu dana ci jàngale mbiram sharia ah, lu mel ni ëmb ak nàmpal dana ci jàngale tamit tabaarakallaahu yu mel noona saar wi nag mu ngi wàcc rek gannaaw bi nga xamee na nii saar wi ñu tuddee jaasiya moo wàcc bii moo ci tegu yonentu bi ne nañ ko nañ leen toftale ndax li saar wee tëje nii la bii tijjee bee dafa tëjee woon ŋàññi kéeféer ak ña ca nekk bii dafa hubbee tagg yàlla ak ŋàññi ñi nga xam ne ñoo nekk ci ak kéeféer euh, ittisaal googu nag jokkale leen looloo tax maanaam yonentu bi ne nañ leen toftale ñoom ñaari saar yi gannaaw jaasiya rek laxqaaf moo cay tegu moo tax mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaakoon bépp mbindéef ci àdduna bi arrahiimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira xaamiim yàlla xam lim ci namu tanzilul kitaab bi wàcceeg téere bii minallaahi aji tukkeekoo la ca yàlla al azizi yàlla may aji not ci nguuram alxakiim yàlla may aji xereñe ci njëfteefam maa xalaq naa binduñu samaawaati juróom-ñaari asamaan wal arda ak juróom-ñaari suuf wa maa baynahuma ak lépp lu nekk seen diggante illa bil xaqi lu dul ci dëgg bind nañ ko tamit wa ajalin ak diir musamman ba de buñ tudd boo xam ne buñ cee heggee rek asamaan ak suuf bàyyeekoo fi ndax ki taxoon ngi def ko fi bàyyeekoo na fi muy nit wala dina ña nga xam ne nag kafaroo weddi nañ mu'riduuna way du mooyu la ñoom amma unziroo walis la nga xam ne waareef na leen ci muy alquran qul wax leen yow yonent bi ne araaytum solo leen ma maa tad'uun li nga xam ne yéen leen di jaamu min doon laay walis yàlla arooni solo leen ma maaza xalaqoo lan lañ bind dara wan leen ma liñ bind min al ardi ci laala moom suuf am wala bàyyi lahum aji nekk la ñeel leen shirkun ak bokkaale yàlla fi samaawaat ci bind juróom-ñaari asamaan yi ndax dafa am lu yàlla bind am bu ñu bind ñoom déeréet itoo ni andil leen ma bi kitaabin ci téere min qabli haada njëkk alquran mii aw asaaratin wala jeexital min ilmin bu bàyyi ko ci xam-xam in kuntum dem nekk ngeen saadiqina di way dëggu ne seen yàlla yi dañoo bokkaaleegi yàlla ci bind dara munuñ ko indi yàlla ne waman amul kenn addala ku gën a sànku mi man ci nga xam ne yeddoxoo day jaamu min doon lay lu dul yàlla man ka nga xam ne laa yastajibu di huyu la hoo ñeel ko bu ko hooyee ilaa yawmal qiyaamati bi ko bis pénci wahum ñoom tamit ñooña ñuy jaamu gaafiluuna way sàggan lañ an duaayhim walis jaamu gañ leen i jaamu ña ñuy jaamu sax yëguñ ne gaa yaa ngi leen di jaamu wa idaa xusira ndeem pangeef na annaasu nit ñi kaanu danañ nekk lahum ñeexa leen aadaan di ay noon ñoom ñoo ñooñu doon jaamu danañ noonoo la leen doon lañ doon jaamu ne musiba mi mi ñu dal yépp yéen a ñu ko yóbboo wa kaanu nekkoon nañ nekk nañ sax kaafirin di way weddi bi ibadatihim ci jaamu gañ leen a jaamu ëllëg kanam yàlla te weddi ga du jariñ dara kon ayaat yaa ngoog yàlla baaxoo lam doon def rek xuruful muqataa yi fu mu ko tuddee ñaareel ci alquran rek wàcceeg téere bi la cay teg lottaloo gim lottaloo mbindee fi ci nit ak jinne wane ne nim xereñee ci ko xereñe ki rek di yàlla la mën a bàyyee ko yàlla ne binduma asamaan ak suuf lu dul ci dëgg waaye bind naa ko tamit mu war a am diir bu mu fi war a ne bu loola jeexee rek asamaan ak suuf bàyyee ko fi ndax nit miñ ko fi defaloon du fi neexatut asamaan ak suuf du fi neeti ndax li ñuy rëy rëy nit rek ñoo ko fi tax a ne yàlla ne nag ñii ngeen di jaamu bàyyi ma fi man wan leen ma liñ bind dara nuñ koo wane mu ne kon nag ndax ñoom dafa am luñ bokkaaleeg yàlla ci bind ak asamaan ak suuf déedéet mu ne kon nag andil leen ma ci loolu téere bu koy jàngale bu jiitu alquran amut wala ngeen andil ma athar ci jeexital yoo xam ne xam la bu ngeen jëlee ci seen maam yi ñu jëlee ko ci seen maam yi mu nekkoon lu ñu bind maa lu ñu wax ci lu wér loola kenn mënu ko indi seen bànneexu bakkan daal dong lañ topp di ko jaamu te loola ñuy jaamu ñuy xërëm yi sax ñoom yëguñ na ña ngi leen di jaamu te bu yowmal xiyaamee danañ noonoog ñoom ndax danañ wax ni musiba mu leen mën a dal rek ñoom ñi ngi ko jëlee ca loola bu ko defee ñoom ak ñoom ñu bokk nekk safara antum wa ma taabuduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waaridun aaya yi tegu ci tamit buñ jàngee alquran ci seen kanam mu nekk aaya yu leer ñi weddi alquran ne ay lii de njabar rekk la lii de yonantu bi moo ko créé yonantu bi na su ma ko créé woon ci nattale yàlla di ma mbugal kenn mënu maa fanqal mbugal ma te nag kenn gënu maa ragal mbugalam yàlla kon du ma waxal yàlla lu mu lu ma wax rek yàlla ma ko wax muy tekki ne lim ñi andil yëpp wax wax yu loogu ko yàlla wax yu waaye yokkut ca benn xaraf wàññiwut ci timit benn xaraf bu ko sañoon a wàññi wàññi abasa wa tawala bu ko sañoon a wàññi wàññi qul ya ayyuhal kaafiruun bu ko sañoon a wàññi wàññi tabat yada abi lahab bu sañoon a wàññi wàññi maa kaana li nabiyyin an yakuna lahu asra ayaat yu mel noonu yëpp li muy tàng-tàng yonentu bi dékk na ko indil ko xeetam wi kon li mu indi lépp alquran la yi wax yàlla la moom lay wax nii moo tax mu ne wa ida la ndem jàngeef na alayhim ci ñoom aayaat naa suñu aaya yi bayinaatin mbir mu muy aji leer naññi qaala wax la dina ña nga xam ne kafaroo weddi nañ lil xaq ci alquran lamma jaawum ba mu leen dikkalee lu ñu wax ñu ne haada alquran ji de sixrun njabar la mu mubinun ngay aji biral ci njabar am wala bàyyil sax yaquluun dañuy wax ne sax iftaraahu duud na ko moom yonantu bi xul wax leen yow yonantu bi ne in iftaraytoo su fekkoon dama koo duud ci nattalee fala tamlikuuna mënu leen a jañ lii ñeexal ma mi ne ci mbugalam yàlla mi shay an dara huwa moom yàlla nag axlamu aji xam la bi maa tufiduuna ci li nga xam ne yéen koy wax fii ci alquran kafaa doy na bihi ci yàlla shahidan ci aji seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante wa huwa moom yàlla alxafooru muy jégalaa kon bi arrahimu mooy borom yërmandi ji qul wax leen ne maa kuntu nekkuma bidaxan di aji njëkkee mina rusuli ci yonantu yi bidaxan bi maanaa badeexan njëkkuma fee nekk yonantu ki njëkk a nekk yonantu bu ñu yoonal mooy yonantu yàlla noox demeet ba ci yonantu yàlla Isaa ñii ñëpp jaar nañ fi ma door a ñëw wa maa addri xaw ma nag maa la nga xam ne yu faalu def na def bi ci man xaw ma dañ may rey xaw ma dañ may tuxal sama dëkk bii xaw ma danaa gàddaayi bi bikum xaw ma tamit nu yàllay def ci yéen xaw ma fu ngeen di mujj man daal li wér taxóor in attabiu déet may topp illaa maa yuuxal loo xam ne wax yoof na ko illay jëm ci man wa illa lu may aji waare mu bind koy aji biral ci waare lu rek la kon alquran na ngoog waxi yàlla la waaye réer a tax ñi di ko weddi naan yonantu bi moo ko créé te wax jooju dafa leen a xëy te yëguñu ko yonantu arab la comme ñoom su manee nee créé téeméeri euh, maanaam saar ak fukk ñeent mu tolloog samadu man a créé juróom benn fukki xisib kon kay ñoom wax dëgg yàlla war nañoo mën a créé fukki saar bokk yàlla ne andil leen ma ko mënuñu ko faatu bi asri suwarin mislihi muftarayaat mu ne kon andil leen ma benn saar rek te saar mooy lu am commencement am mu làmboo maanaa la ca gën a gudd mooy suratul baqara la ca gën a gàtt mooy suratul kawsar di ñetti aaya rek mu ne kon faatu bi suratin mislihi mënuñu ko andi mu ne kon andil leen ma uslo bu mel ni alquran rek ci wax joo xam balaaxa tabaarakallaahu wax joo xam ne am na fasaaxa wax joo xamee ne timit dana solo lu fàddu lu ñëwagut te bu ñëwee demee nam ko waxee fal yatoo bi hadisin mislihi mënuñu ko men nam musaylimatul kazaab moo doon jéem te jéem goo xam ne dafay feeñal ak tële ñàkk a def te dese kumpa sax moo ko gën mu ne man danaa topp ndoor alquran andi ne wa zaariaati saraan wal xaasidaati xasdan wa taaxinaati taxnan xam nga du waxi dara mu ne maa ngi gëñ ne mbay mii nit ñi bay seen tool yi bay la mboj mi nit ñi bojj seen dugub yi bojj la xam nga ne loolu du waxi dara ulamaaw balaaxa ñu ngi ko ñaanal ne raqiqatun fi lafdiha wal maana ka qawlihi wa taaxinaati taxna wax joo xam ne dafa am dafa am rakkaaka nëx lool amul bopp amul geen mooy wax ji kii jéem a topp ndoor alquran alquran dafa fasaa ba nga xam ne ku koy jéem a topp ndoor fasaaxa bi kenn mënu ci dara kon waxi yàlla la joo xamee nii kenn mënu cee wax dara lu dul ni ko yàlla waxee rek boo boo ci jéemee topp noonu rek alkane jàppandi la ña ko doon jéem mënuñ ca dara soo doon jël tey ci balaaka ñi doon jéem a topp loolu alquran kenn xamul niñ toll ñoom mu mujj nañ jébbalu nangul ne alquran waxi yàlla la jinne yi sax nga xam ne li may wax ku gis ku mi ñu ne xanaa dafa gis jinne jinne mii nag nga xam ne ku ko gis jommi ba mu déggee alquran moom joom jommi na ne inna samina quranan ajaba yahdi a rusdi fa amanna bi wala nushrika bi rabbina ahada kon nag junne mi mën a jommalaate su déggee lu ko jommal di alquran alquran mën naa jommalaate kon alquran waxi yàlla la bu ko kenn ci axaanee ku ko jéem a toppandoor rek safadi aaya yi mi ngi ciy teg ne qul wax leen ne araaytum solo leen ma moom aaya ji Makka la wàcc Madina la wàcc moom laa la waxoon aaya ji dafa wàcc ci Abdullahi ibnu Salaam lay wax moo doon labbe ca jooja jamono ci ñooñ tawreet ñu ngi doon sukkandiku ki diine ti yàlla euh, Moussa Abdoulaye ibnu Salaam moo doon seen kilifa bari xam-xam maandu baax lool keroog ba yonentu bi gàddaay see Madinatul Munawara ni ñee def délégation di ko seeti mu ne man de maa ngi dem seeti ko bu ma wanee benn preuve rek benn mandarga rek danaa xam ne kii yonentu bi yàlla la benn aaya dong lay sàkku benn kaawteef mu waaxu ñëw ne jàkk xool yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam rek taxaw ne ko ashhadu an laa ilaha illallah wa annaka rasulullahi ñam àndatoon ak ne ko yow yaa waxoon dangay ngay sàkk mu defal la benn miracle nga door a mën a gëm di mu ne kii xar-xaramam bu leer bi doy na miracle walaay bi ma ne ko jàkk laa xam ne euh, moom laysa bi wajhi kadab yoriwul xar-xaramu naraakoon am na koo xam ne boo koy gis rek ci saa si da ngay xam ne kii nitu dëgg la mu ne ba ma ne ko jàkk sàkkootuma benn kaawteef bu ma wanal xar-xaramam bi doy na ma kaawteef bam pare mu laaj yonantu bi ne na ko dinaa la laaj ñetti laaj ab yonantu rek koy tontu damay laaj buñ duggee aljaana lu ñuy yàlla njëkk a ganalee yonantu bi ne ko resu jën mu ne ko dama lay laaj doom moom ci góor lay soqeekoo wala ci jigéen yonantu bi ne ko bu ñu àndee su fekkee ndoxam góor moo njëkk a génn ci moom lay soqeekoo bu ndoxam jigéen a génne ci moom lay soqeekoo mu laaj ko ne ko tamit bis ci sarta ya mandarga ya ban moo ki jiitu mu ne ko safara woo xam ne day dàqee ni ñi jëlee leen ci sarq yóbbu leen ca bu mu ne ko dëgg-dëgg yow yonentoob yàlla nga mu ne ko nag sama nit ñi ñu ñëwee laajoo leen ba pare ñu wax ci man danañ ma xas dañ ma ayibal ñu ñaaw làmmeñ lañ waaye damaa bëgg bu ñëwee bala ñoo wax dara rek laaj leen man maay kan nitam ñu ñëw def juróom fukki nit délégation ba juróom fukki nit la ñëw fekk yonentu bi toog yonent bi laaj leen ne leen waaye Abdullah ibnu Salaam moom lu ngeen xam ci moom moom kat xissin la njëkkoon a tudd yonent bi tudd Abdullah ibnu Salaam mun lu ngeen xam ci xissin ñu ne ko mooy ki gën ci ñun di doomi ki gën ci ñun mooy ki gën a bari xam-xam ci ñun di doomi ki gën a bari xam-xam ci ñun yonent bi ne leen kooka moom bu tuubee lu ngeen di waxati mu ne ko kay muslu nañ ci yàlla muy tuub ñu dem rek moo Abdullah ibnu Salaam fekk leen ñu toog mu ñëw ne leen maa ngi seede ne gis naa lu ma doy gis naa ko ma doy ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ñu commencé ko xas ne kii mooy ki gën a bon ci ñun di doomi ki gëna a bon ci ñun mooy ki gën a réer ci ñun di doomi ki gën a réer ci ñun kon nit ñi mën nañ laa tagg ma nañ laa xas jëmuñu fenn li may wax toujours rek lépp lu ñuy taggee ku xam xaalis rek ku xamul kaalis ñu xasee ko ko soo dëkkee ci koñ bëri jàmm santé mën a laayee biir xale boo romb nuyu ko di yëkkatee ko tëral taxamoo dara waa koñ man ni mu ñàkkee fayda lii rek moo ko tardeel mënoon naa dem liggéey mu nekk fi di taxawaalu waaye nga nekk ci koñ am xaalis xale yi boo leen nu nuyu leen yëkkati jënd tàngal yenu boo fa doon def trois heures de temps yee kii ni mu amee aajo xale sax mën na koo yenduloo ci àll bi ni mu bëggee xale te xoolal kii tàgg nañ ko ci loolu xaskale ci le ñàkk moo bon yàlla nañ ci yàlla musal moo tax Omar ibnu Xataab ne billaahi su ma dajee woon ak ñàkk fanam yem fa ma ne waroon na koo rey sax ñu noppalu kon ñàkk yàlla nañ ci yàlla musal yonentu mosta fanaan mosta yee xëy yeewu te ñaanul yàlla ci ñàkk mosta xëy maanaam fanaan tëdd guddi te ñaanul yàlla yàlla musal ko ci ñàkk ñàkk ak tayal ak tàppet mooy ragal bokkoon na ci loo xam ne mosta xëy te ñaanut ci yàlla muslu ci yàlla mosta timit tëdd te te musluwut ci yàlla daana wax na sax kaadal faqru an na kufran mu ne ñàkk xaw naa yóbbu nit ci kéeféer ndax boo ñàkkee sa kol rafetul rek mën na laa yóbbu ci kéeféer tax kon yàlla yàlla musal ci ñàkk léegi na Abdullah ibnu Salaam mi tuub nag ñi wax ko loola ñoo ko xasoon ñoo ko taggoon ñoo ko xas moom nag ku yàlla baaxal la moom rek la Saïd Saad ibnu Abi Waqaas wax ne moom laa gis kuy dox ci kaw suuf yonentu bi seedeel ko nitu aljana la ba koy saxdu di wax nag wax jooju Buxaari yu indi na ko booba nag maanaam tu bi fukk yam dëxaloon aljana waxagut ko woon muy Aboubacar Seydina Aboubacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliyu sayidna subayru talaatu saadu said hamir bun jara abdurahman ibnu awf booba tuddagud ñooña ñii la yonentu bi rappel seen tournée aljaana ngeen jëm waaye nag avant muy wax lii ñëw ki mu njëkk annoncé ne aljaana la jëm mooy abdullah ibnu salaam yonentu dafa toog ci jàkka ji nii sahaba yi war ko mu ne leen ko bëgg gis ni nitu aljaana koolal ci porte bi léegi tey mu génnee fa mu wax ko démb abdullah ibnu salaam génnee fi mu wax ko bërki démb mu génnee fa mu wax ko tey mu génnee fa ànd ak njàpp bokk dàll sahaaba yi na ko waaw luy sa sekkare yonent bi annoncé woon na nitu aljaana barki démb yaa fi génne mu wax ko démb yaa fi génne mu wax ko tey yaa fi génne mu ne su fekkee am naa benn daraja ba mu war a mën a yóbbu aljaana daal xol bu laab lay doon sama xol bi xéenewuma kenn lu bon mu ne ko sa sekkare bi rey na benn sahaaba yu gëmu ko ñëw ci moom ne ko damaa joteeg sama baay bëggoon nga fat ma sa kër ñetti fan ñëw nag bu fajar jotee kam fat mooy njëkk a moo ko mën ci alquran moo ko mën ci julli ba ñetti fan ya jeexee mu ne ko jotee xumaak sama papa dara dama doon seet lan mooy sa sekkar ci jaamu yàlla waaye la ma doon seet yëpp gisuma ca dara maa la gën a a maa la dàq julli maa la dàq xoor maa la dàq joxe joxe alal maa la man ci alquran mu ne ko soo ma mënee ci yëpp ma mën la ci xol bu rafet kon yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim inna fi ljasadi mudga ida saluhat saluha aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wahiya alqalb kon xol mooy lépp koo ko yàlla defaral rek sa mbir yëpp baax na yàlla na yàlla rafetal xol yi abdullah ibnu salaam mi kon ku baax la lii moom la moom la yàlla doon nag wàccee aaya jii di wax ci moom moo tax mu ne qul wax leen qul wax leen yow yonantu bi ne ara aytum solo leen ma in kaana bu nekkee moom alquran min hendilaay baxee koo fa yàlla wa kafartum te mbir moomu weddi ngeen bihi ci moom wa shahidata seede shahidun aji seede min bani israil ku bokk ci banu israil di abdullah ibnu salaam seede ne alquran wax yàlla la mu seede ala mislihi ci alquran fa amana mu gëm alquran wastakbartum yéen ngeen rëylu kon xanaa da ngeen yëg ne tooñ ngeen mu xasaf jawaab ba tooñ ngeen de ñu ne waaw mu ne inna laa naka yàlla nag laa di du gindi alqawma nit ña zalimina ña di way tooñ wa qaala wax la si ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ li la si ñi nga xam ne amanoo gëm nañ ñu ne law kaana bu nekkoon moom ngëm xayran di hiw law kaana bu nekkoon moom alquran xayran di hiw maa sabaquunaa du ngeen ñu jiitu illay jëm ci moom yàlla ne wa is lam yahtadoo ba nga xam ne gindeekuuñ bii ci alquran fa sa yaquluuna xalis na ñoo wax ne haza alquran ji ifkun duut la mu maanaam xadimun gu yàgg a yàgg ñoom dañoo foogoon ne na yàllay nattee ak na na nit di nattee ak na yàllay nattee duuñ benn ñoom dañoo foog ne alquran buy wàcce ci borom xaalis lay war a wàcc alquran buy wàcce ci borom daraje lay war a wàcc ñu ne kon nag wàcc ak alquran bu ñëwee teggi fi borom daraja yi teggi fi borom alal yi dal ci koo xamee na nii ñaari weer dong la am ci biiru yaayam baayam gaañu mu juddu am juróom-benni at jëm ñi wala ñeenti at ñaari wax moo ci ci siira ñii ne ñeent ñii ne juróom-benn maatat maatat ummu taaha li arbain aw li sittin la maam xalifa wax nee na yaay yonantu bi génn àdduna ci ñeenti xatam wala juróom-benni xat ci yonantu bi su ko defee nag yaayam génn àdduna kon moom jirim la baayo la jirim la baayo la buñ ne jirim rek mooy ku ñàkk bàyyi te mësoor aguloo suñ ne baayo rek mooy koo xam ne dangaa teel a ñàkk yaay ñaar yépp nag moo dal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa moo tax kon loola mooy jirim jirim ci nit ak jirim ci njanaaw ak jirim ci bàyyi ma du benn jirim ci nit mooy ku ñàkk bàyyi te mësoor agoo léeg-léeg nit taxaw wax ko bàyyam dee rek mu ne man jirim laa te fekk mësoor na loolu waxi caaxaan la soo xasee mësoor dootoo jirim ñaareel bi nag buy jirim ci ci ci ci ci njanaaw mooy ku ñàkk nday ak baay parce que boo ñàkkee baay ñàkk yaay yaa ngi sa tàgg mi mënatoo génn foofa ku lay indi looy lekk kon jirim nga yow njanaaw bi su fekkee ci mala yi la mooy ku teel a ñàkk yaay boo ñàkkee yaay rek feragoo rek ci ci mala yi su boobaa maanaam jirim nga baayoo nag bu ko waxee mooy koo xam ne dafa teel a ñàkk yaay ci nit yonent bi nag ñaar yëpp dal ko yàlla nag ñëw jël alquran mu dal ci kawam nag ñoom ñu ne nu fi alquran di bàyyi abi jahlin bàyyi fi abi lahab bàyyi fi walid ibnu mughira bàyyi fi urwat ibnu mas'ud ñi nga xam ne ay kàngaam lañ ay sang lañ ay boromi xalal lañ waaye waaye bu doon dëgg maa sabaquuna ilayhi yàlla ne déedéet ni ngeen fi ngeen di nattee ak fi may nattee nekkuñ benn ñi ngeen di xool man ma leen ñi leen saf man ñu ma ki ma saf mooy sayduna muhammad ndax allahu alamu haythu yajalu risalatihi yàlla xam na fu muy def risalaam bi kon ñoom loolu la ñu weddi nag loolu la ñuy wax yàlla ne nag dañoo réer rek mais njëkk alquran am na téere ya ko jiitu woon te téere yooyu teggi woon na borom daraje teggi woon na borom xalal ya yonentu yàlla Moussa nitam ñee ko ëppoon xalal ñu bëri ku néew doole la ba ñu xëy génnee ko dëkk bi bokk na ci famille bi gën a néew doole fokk ci banni Israël gi nga xam ne bannu xibti yi ñoo leen jël def leen ay jaam ñi leen di liggéeyal looloo tax ba ñu xëyee sax euh, maanaam mu rey nit xagitul ca dëkk ba amul mbokk yu ko mën a protéger mu daw dem fa la ci Suwaybu di fa sàmm fukki at door fa am soxna ànd ak loolu am ñeen fukki at door a ñib si at yàlla yónni ko ci yoon wi ne ko demal ci idhab ila firawna innahu taxa kon xam nga ne kii ku néew doole la ci ay mbokkam yonentu yàlla luut moom bañ na ko ña ko yàlla yónni woon dugut sax seeni mbokk ab sàmmaan la woon yóbbu ay gàttam rek teqalikoog Ibrahima dem di sàmmi foofa far yàlla yónni ko ca ñooña na ngi néewal ko doole lool lu na ngi def ko mu ne haawulaay banaati hunna atharu lakum mënuñ ca dara ba la ko dal dal ko ca ak la kon yàlla mosta yónni patron bu yàlla mosta yónni ku borom daraja ak niñ ko foogee moom kay yàlla dafa baaxoo fu dara néewul rek lay def dara fu dara néewul rek lay def dara fuñ foogeewul dara tamit lay def dara waaye fuñ foogee dara boo fa defee dara dootul amati maana yàlla noonu lay doxalee moo tax yàlla ah, gànjaram bi mu am di or wala wurusam yi da koy sànni ci sën ku ñëw romb ko doo ko foog njàccaaryam yi rek ñi xam ne moo leen wan yi ay njàccaaram ñoo gis may googa ci moom waaye mbir yi fañ ko foogee nekku fa de fañ ko foogeewu rek fa la nekk yàlla ne wa min qablihi aji njëkk la alquran kitaabu Musa téere Musa ba di tawreet imaaman mbir mu mu nekk di roy téef wa rahmatan mbir mu nekk di yërmande wa hudan ak njub wa haadha téere bi di tawreet maanaam téere bii di alquran kitaabun téere la mu musaddiqun muy aji dëggal téere ya ko jiitu woon lisaanan mbir muy nekk di làng arabeen bay ko jug arab li yun fira ngir na waar moom yonentu tu si nga xam ne xëla moo tooñ nan wa busra muy mbégte lil muslimin ñel way rafetan ñi ina la si nga nga xam ne xaaloo wax nañ rabbuna borom suñu allahu mooy yàlla su mastaqaamu topp ñu jub kocc falaa xawfun det raga alim di nekk ci ñoom fañ jëm ci àllaaxira wala hum déet ñoom yax sunoon ñuy ticc lañ bàyyi gannaaw ulaayka yooye gaay ashaabul jannati ñooy mboolam aljana xaal dima ta seen ak béel fiyaa ci aljana jasaan muy pay ak pay bi maa kaanoon si lañ nekkoon yaxmaloon di ko jëf kon li ngeen foog ak li yàlla di def ni benn loola wax joojo jeex na aaya ji wàcc ci mooy wa wasaynaal insaana mooy ñaareelu aaya bu wàcc tamit madinatul munawara waxoon naa la bi wàccul madinatul munawara tax muy buy jàng sànq léegi bi ci tegu nii di wa wasaynaa tamit madina la wàcc li gën a bëri ci mufassiruuna yi dañ ne ci abubakar siddiq la wàcc lu tax Aboubacar Siddiq ku teel a gëm sayduna Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñaar ñaari xat lañ magante yonentu bi moo magee Aboubacar ñaari xat bi Aboubacar di am 18 ans yonentu bi fekk am na 20 ans ñi ànd nag dem Cham di commerce ji ñëw ba ci benn ron garabu siddéem yonentu bi toog fa ca kër ga di noppalu Aboubacar nag gis benn labbe soriwut foofa nastuuraal lay tudd dem fa nag ne ko man daal mbiri diine dafa ma ñor ma bëggoon nga laay biir ma ci wàllu diine bi ñu war a jàpp ndax màkk la dëkk te ñoom ummi yi na lañ mosuñoo wàccee ci ñoom benn téere labbe ba ne ko kee toog ca garabu si déem nga moom kan la mu ne ko Muhammad la tudd sallallahu alayhi wa sallam baayam Abdullahi la tudd yaayam Aminatu maamam Abdul Muttalib mu ne ko jàppal ci moom bum la raw kee mooy mu ak yonantu yi garab gee mu toog yonentu yàlla Isa mooy ki ca mujj a toog kenn du ca toog ku dul ab yonentu bu la raw de foofa nag la Aboubacar amee yaqiin ci yonentu yàlla Muhammad ne mooy nekk yonentu amoon na ci ay mandarga bii nag moo ko gën a dëggal laaj bi ne ko du la jox dara du la wax dara li ma lay laaj biir daal bu la raw mu dem ànd ak moom ñii commerce ca lañ def nag am na yoon woo xam ne sax ba ko Xadijatu ràngee bagage ya mooy yoonam wu mujj wi. boole kook benn jaamam bu ñu tuddee may maysaratu góor la nag mi ngi mel ni nga ne xamsatu rek ne ko nag observateur laa la jàppee jënd loo looxuma la jaay looxuma la nag ma observé loo gis ci kii rek ñëwal nga wax ma ko dama cee bëgg a dugal sama pexe dem nañ ñëw nañ mu ñëw ne ko gis naa ñeenti mbir ci moom bi ci njëkk daal ba ñuy dem am na aw niir wu ko tiim di ko keral li ma gën a jaaxal loo ko jege-jege ci naaj wi ngay ne moom rek kay nekk ci ker gi mu ne ko ñaareel bi dem nañ ci benn ron garab commercant yëpp toog ca keru garab ga yaram ak teggiin may ko mu toog ca pegg ba fa la naaj wa yem banqaas ba ca hëpp ker bàyyi gaaye ca ker ga ñëw keral ko ñoom ngi nekk ca naaj wa mu ne ko tamit marchandise mi ngi ñu jox daal su koy jaay ñi koy jënd ñëpp benn couleur la ñuy sol yëre yu weex tal te ku ñëw doo waxante ndax ne maay jaay maay jaay jaarale marché bi ci yonent bi ndaw marché buy gaaw a jar mu ne ko tamit maa dégg benn labbe bu ñu tuddee nastuura kenn waxut nettaliwuñ ma maa dégg ci noppam mu ne kii mooy mu ak yonent yi ba mu bàyyi ko Màkka ba ni mu si fii garab yi mu romb ñu ngi koy sàbbaal montagne yaa ngi koy su jóotal ba ni mu yegg si fii maa ko dégg mu wax ko Xadijatu ne ko sa njaan wàcc na demal li ma la doon defee jeex na kii kon xam naa ne moom la danaa dugal galgal ba du ma rëcc fa la defee ay pexeem nag liggéeyloo ko rek yéex koo fay saa yu nekk rek du ko fay taam na lu mu ko fayee mu dem a dem nag ba fay ga nag xaw yàgg nag mu dem sa bàyyi taxam ba abu taalib abu taalib ne ko demal nga wax sa xadijatu euh, ne ko na la fay lim la ameel dañ laa bëgg a takkal soxna mu muy ko ñëw bu jubee kër ga rek dëppaat ngir kersa ñëw na ba jub kër ga ñetti yoon man ta xegg ngir kersa mu ba ñeenteelu yoon wi nag mu ñëw mu forcé ko ne ko demal mu ñëw rek sëgg nag commencé nag di raay maanaam doq gaak bopp ba ne ko sama mbokk yi nee nañ li nga ma ameel nga fay ma ko dañ maa bëgg a takkal soxna xadijatu reene ah jigéen ñi kon yomb di liñ fi liggéey bëree guddi loolu mën naa am soxna waaye boo demee waxal sa mbokk yi ne am na jigéen gu nekk màkk kenn gënu ko fee taaru moo fépp alal kenn xëppul ko fi daraja te ku ko bëgg bëgg na la te ko ko bëgg lim am lépp yaako moom ah mu dem ca bàyyi tëx ja wax ko ko nag bàyyi tëx ja ku dégg wax la dégg na balaa xam mu ne a ah xadijatu kon boppam lay gaaral ci suñ doom ji màgget mu toll ni moom suul ñaari jëkkër am ñeen fukki at suñ doom ji am ñaar fukki at ak juróom muy gaaral boppam ci moom waaye bala ma caa sori ndax bëgg nga mu ne waaw waaw sëy nag dëgg-dëgg bu jëkkër bëggee jabar bëgg ko ca waxati ñaaw ca soo ca bëggee sonn bul sori foofa nag la ni caaxaan kon nag jeex na li fi des nag mooy sol dàll abu taalib dem na abu bakar demoon na ca labat ga ñi dem nag ñaanali ko yonantu bi abu abu taalib xutba fa na xutba goo xam ne kenn su koo dégg na suñ doomu mbokk mii suñ ko doon peeseeg mbindeef yi tey ci am am ñëpp daan ko waaye buñ ko doon peeseeg mbindeef yëpp ci jikko mu daan ñëpp ko moo ñëw di labat seen doom ji su ko defee nag ñi may ko ko yonentu boobu ñaar fukki at la am ak juróom saydatuna Xadija am ñeent fukki at moo tax na kon lu mu la mag mag mag du ko yàq yonentu bi takk na ko ko mag yonentu bi takk na koo xam ne tamit moom mën na koo jur takk na say Fatima saydatuna Aïcha nga xam ne bi mu koy takk juróom benni at la am ñu fas sëy ba bañ ko koy jébbal juróom-ñeenti at la am xam nga kon kon soxna su tuuti la waaye takk tamit soxna soo xam ne am na ñeent fukki at boole ko suul ñaari jëkkër euh, hind ak maanaam euh, atiq ñaari jëkkër yi la say saydatuna Xadija amoon kenn ku ne am na ca benn doom kenn ku ne sa doom jang ci am hind la tudd waaye hind mële góor la mëneen hind mi tamit jigéen la ndax kii dafa dem ba ëmb ndeysaanam baay ja génn àdduna ñi far tuddee ko baay ja loolu tax mu ñu ko daan wax hind yim nu euh, hind doomu hind waaye ma mëneen hind ma nag moom jigéen la woon moo tax kon li ñuy wax naan jigéen bu suulee ñaari jëkkër ku ko takk boo moytul mu ñetteel la ah loolu caaxaan la de yonentu bee ko njëkk a def comme xaa dajooj yonentoo ko njëkk a màbbu xam naa néexut a màbbu nag suñu réew mi jigéen goo dem ñu ne ah am na ñaari jëkkër suul na leen soo moytul bu ko yàlla dimbali dootul xamati jëkkër de xanaa mu taaru lool bëri xalal lool su boobaa de kon jigéen moom bu taaroo bari xaral góor ñaay jeex rek waaye du lambu boo déggee nga ku ko takk dee tamit ah dañuy wax rek may bàyyil ma dugg ci nga dee rek kanañ ah dañuy wax rek fanama jeexoon rek ba far góor ñi jeex far <laughs> waaw rek moo la ci mën a génneel kon aboubacar ci la aaya ji wàcc ñaari at la ko yonantu yàlla muhammad magee sallallahu alayhi wa ba ñuy yónni yonantu bi ñeen fukki at la yonantu bi am mu am fanweeri at ak juróom-ñett mu teel a nag dugg ci lislaam dañ ne yonantu bi altine lañ ko yónni abubakar dugg ci lislaam talaata mooy premier membre bu mu am ne ñi ne di dara jaale daal ne ku njëkk a gëm tey gor daal tey jigéen xadijatu buy góor tey gor maanaam sayduna aboubacar su fekkee xale tey gor ali ibnu abi taalib yooyu yëpp lañ koy dara jaale ba dugg ca ñuñ moom ña waaye daal li muy tekki rek teel naa dugg ci lislaam teel googu mu teel a dugg ci lislaam tamit nag moom lay alquran di wax nii moom tamit li ko yaayam ëmb alquran na nga koy wax aboubacar siddiq yaayam juróom-ñeenti weer la ko ëmb nàmpal ko ñaar fukki weer ak benn ci la aaya ji mooy jàngale kon di euh, diirab ëmb ak diirab nàmpal euh, alquran dafa ne wax na ci aaya ji wa hamluhu wa fisaaluhu thalaathuuna shahran mooy li gën a dafa jël li gën a tuuti ci ëmb boole koog li gën a bari ci nàmpal yaa jàngoon ci suratul baqara mu ne wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaa hawlayni kaamilayni ñaar fukki weer la ak ñeent waaw ñaar fukki weer ak ñeent boo ko génnee ci fanweeri weer ñaata cay des juróom-benni weer te alquran ne wa hamluhu wa fisaaluhu salaasuuna shahran kon juróom-benni weer mooy li gën a tuuti ci ëmb li gën a bëri ci nàmpal di ñaar fukki weer ak ñeent di ñaari xat loolu moom la moom la lislaam gëm moo tax ku takk soxna mu am ci yow juróom-benni weer am doom bul fi nekk naan juróom juróoma doom jeeg dafa indiwaale ëmb bi déeréet juróom-benni weer moom tabaarakallaahu ku ko takk ci soxna rek sa doom la ci jamonoy Umar mu Xattaab ci xilaafaam xaraw xawoon na cee am muskila dafa am waaju takk soxna juróom-benn weer mu am doom Omar ne nañ ko inscrit ci list bi su nampalee doom ja ba mu feral ko rek ñu géteen ko waaja yooxu coow la ju bëri bañu Ali ibnu Abi Talib dégg ko Aliyu ñëw nag ne ko soo ko géténee fooy teg wa hamluhu wa fisaaluhu thalaathuuna shahran mu ne ko loolu li muy tekki mooy mu ne ko yàlla dafa jël li gën a tuuti ci ëmb boole koog li gën a bëri ci nàmpal li gën a bëri ci nàmpal ñaar fukki weer ak ñeent li gën a tuuti ci ëmb juróom-benn weer Omar yooxu ne law la àlliyu la halaka amrun bu toxutoon a àlliyu rek Omar alko ñoom tamit lu la mag-mag ndeysaanam bul masala taxawee rek dañ koy gëm dañuy nangu masala ak fu mën a bàyyee ko kon loolu mooy mbaax ak woyof su ko defee kon loolu la léegi nag boo demee ci fuqaaw yi li gën a bëri ci ëmb am na werante li gën a tuuti ñëpp xam nañ ko juróom-benn weer la ku takk jabar juróom benni weer mu am yaa ko yaa yaa jur doom ja boo demee ci ñi seen xam-xam màcc ci mét mét mét mét médecine ñu nekk ay médecin dañ ne juróom-ñaari weer jigéen mën na cee am doom waaye doom ji dund bëriwut la gën a néew pour mu dund nag nga xam ne bu dundee rek day day nekk maanaam lu lu yéeme miracle la mooy juróom-ñetti weer juróom-ñetti weer moom ku ci am doom ñaareel doom ji du dund ndax ba matee juróom benn weer la commencé xëccu bu demee nag ba ki juróom benn ñaareeli weer ba génnut ca mu continué xëccu ba ca weer day lompañ buy génn rek dee ndax te juróom-ñetti weer nit mënu cee am doom ku ci am doom maanaam doom gi tamit doom gi du dund waaye nag la gën a not nag ci ëmb gën a bëri mooy juróom-ñeenti weer moo gën a bëri léegi nag la gën a bëri ci ëmb euh, borom xam yi xamuñu ko boo demee ci masaahi bi Malik ak Abu Hanifa imaam Ahmad imaam Shafi dañ caa wuutee Malik dafa ne li gën a bëri ci ëmb juróomi at la ëmb mënta passé juróomi at juróomi at moo tax boo fi nekkee moodu moodu a ànd ak sa soxna bàyyi ko fi wane gannaaw feeg juróom-benn at mu am doom bul ñëw ne ah man du juróoma doom ci comme ba ngay dem laabluwoo ko woon daal ba mu ba mu yore deret nga xam ne jotee hoog moom ca loola sañoo wax ne du sama doom ndax ànd ga la muy yàgg-yàgg doom te juróomi at la mën na caa am doom juróomi at mooy ëmb bi gën a yàgg ci Malik soo jëlee imaamu Saafi yu ñaari riwaaya moo ci am riwaaya bu njëkk bi dafa ne ñeenti at mu jige mu dàq ko ne juróom-ñaari at Saafi yu ne ëmb mën naa dem ba juróom-ñaari at boo jëlee ku mel ni imaam Ahmad moom dafa ne li gën a bari ci ëmb ñeenti at la boo jëlee Abu Hanifa dafa ne li gën a bari ci ëmb ñaari at la kon lii mooy seen gis-gis ci ëmb mu des nag nàmpal nàmpal moom ñaata weer la ñu ne comme alquran dafa ne fi nga ëmbee ak fi ñu la ëmbee fi ñu la nàmpalee fanweeri weer la kon li nga ëmb rek mooy sa atteem nàmpal su fekkee sa soxna lim ëmb di diiru ëmb ba juróom-ñeenti weer la na nàmpal doom gi ñaar fukki weer ak benn fanweeri weer ya mat su fekkee dafa ëmb juróom weer na nàmpal ñaar fukki weer ak ñeent muy ñaari xat bu ko defee naam euh, loola mat fanweeri weer ya mat ci wal walidatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayn liman arada an yutimma daa bu fekkee dafa ëmb at tamit muy fukki weer ak ñaar su boobaa tamit fukki weer ak juróom-ñett lay mën a nàmpal mu fanweeri weer ya mat kon daal li nga ëmb rek euh, boo ko ca génnee la ngay nàmpal fanweeri weer ya mat mooy sa àtte noonu la ko borom xam-xam yi déggee waaye àtte su fekkee sa doom dafa bokk ci ñi nga xam ne soxna si dafa neex dafa dafa dafa neex soow nàmpal doom ji ar rek yàlla dogal mu dëgër commencé mën a lekk ñam te gis nañ ne bu continuer nàmpal gi yaay ji dana dana loru su boobaa dañuy feral doom ji feral léegi-léegi lislaam da ciy topp maslaha ak yaay ji ak maslaha xale bi su fekkee boo teelee feral xale bi loru yaay ja moom gën a am kartan ngir bëgg rek no noflaayu loolu moom teere feral xaraam na su fekkee boo yéexee feral ndax kat yaay ja loru doom ja moom du ko teree du ko teree nekk mel na mu war a mel yéex a feral googu xaraam na ndax da ngay lor yaay ji moo tax léeg-léeg euh, lislaam da ciy seet maanaam maslahaak yaay ji dana ci seet tamit maslahaak doom ji moo tax kon aaya bi madinatu mun a war a la wàcc wàllu wàllu madina moom boo ci xasee dugg rek da ngay dugg ci wàllu sariya ah, atte yooyu lay jàngale moom lay wax si nii nag moo tax mu ne wa wasay naa dénk nañ al insaana maanaam abubakar siddiq dénk nañ ko bi wàll day ñaari waajuram dénk nañ ko na rafetal ihsaanan ak rafetal a ngi jàng xusnan xamalatu ëmb na ko ummuhu yaayam kurhan mbir mu muy nekk ci forcé wa wadaathu sippi na ko yaayam kurhan ci forcé wa hamluhu diiru ëmb ba wa fisaaluhu ak feram ga salaasuuna fanweer la sëhran ci weer xatta ida balaga jëm ba nga xam ne jot na moom aboubacar asuddahu dayab kartanam muy fanweeri at ak juróom-ñett wa balaga fekk jot na moom yonantu bi arbaina ñeen fukk sanatan ci xat yenoon bi xam ñeen fukk moom moo xam fanweer ak juróom-ñett mu gëm ko nag gëm gim ko gëm mu sant ci yàlla xaala aboubacar ne rabbi yow sama borom aw seex ni yàlla nga yenkiwal ma an ashkura ma sant ka sa xéewal gi allati xéewal goog an xam te xéewal nga allee ci man ci gëm gi ma gëm yonentu bi wa tamit xéewal nga ko ala waalday sama ñaari waajur sama ñaari waajur yëpp gëm nañ sayduna muhammad wa an amala ma jëf saalihan jëf ju baax tardaahu boobu da nga gërëm ko wa nga xéwénal lii ñeexal fii zuriyati sama njaboot gi yëpp tamit yàlla nga xéwé na leen ñaan nga yàlla nangu na ko doomam yëpp sëtam yëpp gëm nañ sayduna muhammad inni naka man tubtu tuub naa ilayka jëm ci yow wa inni naka man minal muslimin maa ngi bokk ci ñu baax ña ulaayka yooye gars yi la si ne mooy ñi nga xam ne na maanaam yota xabal dana nangu an walis leen ahsana ma amilu rafet ak li nga xam ne jëf nañ ko yooye ta jaawus dana jéggal an sayaatiim seen ñaaw téef ya fii ashaabil janati mbir mu ñuy bokk ci mbooloom xal jaana ya mu nekk nag wax dal wax da sidqi dëxalab dëgg lasi yi nga xam ne kaanoo nekkoon nañ yu wax du dëfaleef leen ko kon aboubacar ngoog loolu la wax ci moom yaay yaay yàlla ñuy fàttali aboubacar la waaye ñun ñëpp la yàlla nee na yaay doom situation bu mu mën a am bu yab yaayam bu mu yab waajuram yi ba mu ne maanaam wa wasaynaal insaana bi waalidayhi maanaam ne ihsaanan am ñu jàng xusnan dénk naa leen ngeen rafetal jëmee seen ñaari waajur yi ak rafetal rek bàyyi bàyyi fële nag commencé du tudd yaay ndax tudd coono bi bàyyi bi yaay am ne sa yaay moo la ëmbu fa ëmb ba nekk force métti lool dana toll étape boo xam ne nekkatul yére yi ko neex lay sol yéréem yu ba dana ko xat mu mujj maye ko mbaa mu leem ko dencaale ko te yaa ko ko teg yaa tax mu xat dana dem étape boo xam ne nekkatul lekk gu ko neex lay lekk nekkatul nu ko neex lay toogee nekkatul nu ko neex lay tëddee nekkatul nu ko neex lay doxee te lii lépp di ak coono yaa ko ko teg mu dem a dem nag ba war a matu war a joxe bakkan bakkanam nar caa des ba ko koy nettali sa nga dégg na ah diw de soxnaam sa mucc na mucc foo ko déggee borom xaw naa dee kon nga xam ne doom mënta fay yaay moo tax kon kurhu ak kërhu nuwuñ benn kurhu bu ko araa waxee rek mooy coono boo xam ne yaram yëg na ko kër kërhu nag bu ko araa waxee rek mooy coono boo xam ne bakkan na ko sib kutiba alaykumul kër uhu kërhun lakum xam nga dem gàddu jaas yi dem xeex yi bakkan bëggut ko de bakkan na ko bakkan bakkan da ko bakkoon koo sib waaye nag ëmb di sonn ka las lasi nga sonn lool di taadoo ko jug di biréngu rek loola coono la boo xam ne sa yaram yépp yëg na ko moo tax mu tudd kurhu foofu kon yaay dëgg-dëgg doom mënu koo fay yaay nag dëgg-dëgg moo ci ëpp coono ñoom ñaar ñëpp sonn nañ nag waaye nag yaay a gën a sonn ndax nag ñoom ñaar ñoo bokk liggéey bi waaye bu neexee rek bàyyi muumal ko boppam bu naqaree rek bàyyi dégager responsabilité mi bàyyee ko yaay kenn ku ne ci ñun boo demee sa kër fekk sa doom tilim dégagé nga sa responsabilité xoo sa yaay xoo soxna si ne ko kaay defar sa doom ji waxoo suñ doom ji de ngeen bokk yéen ñaar tëdd ci lal bi doom jay jooy nga nga wëlbatiku sanguwaat naxal sa doom ji waxoo suñ doom ji doom ja commencé tamit euh, summeeku yëree amut lum sol wala ma nga summeeku soluwut kum jot taqal la sa gan ngi ñëw mu commencé li leen déranger nga woo yaay ji ne ko kaay solal sa doom ji yëre jëlee ko fi waxoo suñ doom ji bu doom demee nag tabaarakallaahu ba mën a liggéey ñu embauché ko mu mën a jënd xaram 200000 jox baay baay nag door a commencé tiitar waa suñu aji kii mooy sama doom ji mooy sama taaw ma ne ko nga ma koy a wax ni mu fi yàggee ba léegi nga ma koy door wax moo tax ma yéex koo xam kon yaay sonn na te ñoom ñaar tamit bu liggéey bi yàqoo rek yaay ja bënn ay bët baay bu jukkoom ñaawee mu ne ko xamoon naa ne lii nga fi mën a am sa bi dara baaxu ci foo tàng sa tàngal sama xol moo tax tamit lii la la yàlla fayee te pourtant yéen a ko liggéey kon dëgg-dëgg yaay yi sonn nañ nañ rafetal jëmee ki ñoom waaye rawatina ci waajur yi waaye rawatina yaay de yonentu kat dafa toog benn waay ñëw ne ko dama lay laaj nit ñi dañoo bëri kan a gën a yell ma rafetal jëmee ci moom yonentu bi ne ko sa yaay mu ne ko gannaawa mu ne ko sa yaay mu ne ko gannaaw mu ne ko sa yaay ba muy ñetti yoon door a wax sa baay ñu ne kon soo amee looy séddale def ko ñetti xaaj ñaari xaaj yépp nga jox ko sa yaay su fekkee yaay yore kër ga su fekkee sa yaay sa papa tamit def ko ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp nga jox ko sa yaay su fekkee ne nag ñoom ñaar ña ngay sëy nag te bi moo yore mère bi loo ko jox mu jox ko mère bi ah su boobaa nag na bàyyi ci ëppale su fekkee loo ko jox nag mu yóbbu ko ca seet bi ah kon nag beneen masala daf fay judd kon bu ko ko jox de jox ko ci waaye bu ko ko jox kon yooyu yëpp lislaam da koy jàngale waaye ñoom ñaar nag buñ la wooyee ndoor sa baay woote sa yaay woote ci même minute ci même seconde sa baay ngay njëkk a wuyu ji door a wuyu ji sa yaay ndax sa baay moo la yilif yilif sa yaay waajur foor na Cheikh na Tijaani tariqam bi li mu koy fonk ak li mu for yëpp nee na boo doon wirdo foo ca mën a tollu yàqam bu la sa baay waxee téyel sa kurus bu la sa baay waxee téyel sa kurus nga tontu leen ba seen tontu jeex fa nga yemoon nga continuer fa te yàqu dara ci wirdo yi waaye ma ne astaghfirullah ni mu fooree salaatu ala nabi ni mu fooree laa ilaaha illallaah ni mu fooree kuñ ne la dagg ko ngir moom kooko foor na de Cheikh nee na bu leen njëkk a waxee boo waxee sa wirdo yàqu na ndax waxee sa baay du farata waxee sa yaay du farata waaye ñi waxee lañ nga tontu leen koo kooka farata la su boobaa buñ lay buñ lay waxee dañ leen war a tontu rek bu seen wax jeexee nga door a lu mu yàgg-yàgg nag moo xam wax ge ci téléphone la waajee jël téléphone bi am ko xoote mu ne sa baay lay wax mu ne dew la soxla te yaa ngi wirdu jëlal huyu ko wala sa yaay la muy direct deel nga huyu ko ba wax ja jeex fu mu moo xam fa nga xemoon nga continuer fa te yàq dara même gumba buy bëgg a ci teen wala oto boo xam ne dafay bëgg a fel xale mayuñ la ñaari baat ñaari baat lañ la may soo waxee ñaari baat jëriñun ëppal ko wirdo wa yàqu waaye tontu sa ndey sa baay amul limit bu doon téeméeri baat tamit yàqu dara kon xam nga kon waajur foor na seex na daana wax ne sax ku amul sa ngërmandey waajur doo jariñu sama tariqa bi boo yeboo ba ko ku xamul sa ngërmandey waajur baaxal ma sama tariqa bi doo ci am njariñ doo ci doo ci jariñu kon nañu jiital lépp ci suñu waajur yi kon abubakar angoog ak li ci xaju ay ji tegu ci mi ngi wax ku xam nga alquran dafa nekk ci dayoo toftale wax na léegi ki rafetal jëmee ci waajuram ak ñaan yam ca ñaan aboubacar yàlla da koo may may gu rëy moom rek lañ xam ci saxaaba yi ku sa baay tuub sa yaay tuub say doom tuub say sët tuub moom daal xamul ko génn lislaam waaye saxaaba yi nuñ toll koo ci wax rek mën nga am koo ko génneel waaye aboubacar mënoo koo génneel képp ñëpp a nga ci lépp ma nga ci biir lislaam loolu da koo ñaanoon mooy mooy li ma li ma daane noonu léegi léegi nag aaya ji tegu ci tamit ba mu waxee ki rafetal jëmee ci waajur muy wax tamit ki ñaawal jëmee ci waajur tamit li koy xaar yonentu daana wax ne aljana doxab xetam ga doxab juróomi téeméeri at la aljana buñ ko installé woon fii wal fajri soo ko soo ko soree woon li toll li toll ni doxab juróomi téeméeri at xet gi commencé na la xeeñ xet ak aljana sori na de waaye yonentu bi nee na du xeeñ kuy dagg say bokk du xeeñ kuy dëngee say waajur du xeeñ ku nuur naan sàngara ñett ñi ak aljana du leen xeeñ waaye xet ak juróomi téeméeri at bu la xeñu xam nga doo fa dugg waaw loolu lay tekki aaya ji nag bi mu wàccee borom xam-xam yi ci ku mu wàcc dafa am werante xam nañu ne ci Abdoulaye Abdourahman ibnu Aboubacar la wàcc Aïsa weddi na ko ne wàccut ci mu ne ñun famille Aboubacar benn aaya moo ma sa benn benn wàcc benn xew-xew moo ma sa wàcc ñu mooy suratu nuur mooy bañ ma tuumaalee ak mooy yàlla seetal ma ki juróom ci fukki aaya ak juróom-ñaar ci suratul nuur bu ko mooyee benn aaya mosta wàcc ci ñun waa Aboubacar. fii nag ñu ne ci abu Abdourahman la wàcc Muawiya ba mu nekkee xalifaab jullit ñi nekk fi dem ba hóolootu dundam bëgg a dafa bëggoon a doomam pour mu jiitu doomam xuutu ko ci xilaafa gi jiital sa doom lu fi yàgg la mu ne daal dafa bëgg sées bii mu toogoon na fi doomam toog jël nag nit ñi proposé leen imposé leen na nañ jaayanteeg moom booba nag Marwan moo doon gouverneur am ba nekkoon Xijaas mu ne ko jaayante la moom Marwan nag comme Muawiya ko fa teg lu mu wax mu def ko mu jaayanteeg moom ba mu jaayanteeg moom nag mu ne lii mooy sunnaab Omar mooy sunnaab Aboubacar ah Abdourahman ne ko nag loolu de amut lii kay sunnaab Hiraqla la ak Qaysar ak Kisra ku toog rek bëgg a jël sa doom teg ko fa waaye duul sunnaab yonent bi de duul sunnaab Aboubacar ba mu waxee loola nag Marwan ne waaye Abdourahman mii di ma tontu jërtul tontu mooy koo xam ne sax yàlla moo wàccee ci moom ne walladi qaala li waaliday ufil lakuma te xam nga loolu xaste wu rëy la sayyidatuna na ne ko déeréet loolu yàlla wàcceewut ko ci ñun de wallahi man toog naag yonantu bi mu xas la mu kas sa baay te booba yow yaa ngi nekk toqantal ma nuyu ci ronam kenn nu laa bon moo tax saaba yi kenn kenn dàqu leen a xaste arab dafa mën a wax léegi nag moo tax aaya ji bu ko kenn moomalee Abdourahman Aboubacar léppam dafa baax kenn mos ta génn diine ji waaye daal nañ ko moomale képp kuy dëngee sa waajur rek képp kuy dëngee sa waajur foo mën a nekk ak jamono joo mën a nekk rek aaya ji lay wax ak sa waajur baax yar la bëgg laa woo ci lislaam yow nga ne ko lislaam intéressé wut ma bëgg laa woo ci julli nga ne ko man ko def bëgg laa woo ci topp say waajur nangoo liggéey nga bañ ko caat wuyu su boobaa aaya ji sa kaw la wàcc moom lay wax moo tax mu ne wallazi ka nga xam ne kaala wax na li waal day ñeel ñaari ñaari waajuram ne uffin cam lakkuma ñaal na leen yéen ñaar ataidaaniya ndax da ngeen may da ngeen may dëhal an uxruja ba génneef ma ma bàyyi ko ci bàmmeel di aji dund wa qad xalat ta mbir moomu woy na qurunu maasya min qabli juutuma te kenn dekkiwul wuhuma ñoom ñaari waajur ya yastaxiisaane ña ngi koy sàkkul xettali laaxa ca yàlla ña naan ko way la ko xoonañ sa taskare amini na nga gëm ak dekki inna waadalaay na nga dëhalal yàlla xaqun dëgg la ci dekki fa yaqulu mu wax ne ma haasa déet dekki gi ngeen may woo illaa asatirul awlilul muy duuti ñu njëkk ña rek ulaayka yooye gaa yi mooy xabar ja lazina mooy ñi nga xam ne xaq xëy na alayhim ki ñoom alqawlu baata mbugal fii umamin ñaxanda xeet xat xalat yoo xam ne woy nañ min xablim li leen jiitu woon minal jinni ci jinne yi wala insi ilaa la moom jinne yi wala insi ak nit ñi innahum naka ñoom kaanu nekk nañ xaas leen di way perte kon ñooñu ñëw moom loola képp kuy dëngee sa waajur perte nga lii baax nga sa baay baax sa yaay baax ñi bëgg laa teg ci yoon wu baax nangu caa tegu ñi lay laaye biir di la ca ñaax yow loola ñorul la su boobaa aaya ji yaa ko moom yàlla ne na da nga perte boo ëllëgee boo dajee yàlla ci ngay door a xam ne perte nga aaya ji nag mi ngi wax ne nit ku ne ak darajaam coow jërul jërul bëril kenn ku ne loo jëf du la génn bu baaxee du la génn su bonee du la génn li nga jëf daal kenn du la ci hëppale li nga jëf muy lu baax kenn du la ci hëppale li nga jëf muy lu bon kenn du la ci hëppale wa li kullin darajaatun mimma amilu kenn ku ci nekk ñeexal na la ay daraja ci yi nga jëf buy ñële ñag muy ñu bon ña darakaat la ñuy xam bu ñu baax ñi darajaat la ñuy xam ci aljana yàlla nañ bokku ci darajaat yi ahlu ya moo tax mu ne wali kullin ñeel na képp ci ab julit ak ab xéeféer darajaatun ay daraja mi maa amiloo ci sababu lañ doon jëf wala yoo fi yennahum wallaahi dana matal leen moom yàlla amaaluhum seen jëf ya wuhum ñoom de laayu la mun a deefut tooñeef leen balee ni wàññil lu baax lu jëf mbaa ñi leen ni yokkal lu bon luñ jëfut wa yawma yu'radu fàttalikul bis boobu def na gaaral la si nañ nga xam ne kafaroo weddi nañ ñu leen di gaaral ala naari ca safara ba ñëwee ñu ne azhabtum demee ngeen tayyibaatukum seen yu teeyi fii hayaatikum seen dund bi duniyaa bu jege bi wastamtaatum bànneexu ngeen bihaa ci àdduna fal yawma tey nag tujj saw na def na fay leen te def na fayee leen xazaabal hóoni mbagal mbugalam doxadi bi maa kuntu saw bu la ngeen nekkoon tastakbiruun di rëylu fil ardi ci suuf bi xayri xaq ci lu duxul dëgg wa bi maa kuntu saw bu la ngeen nekkoon taxamaloon maanaam tafsuquuna di génn topp bëri na tey ku nekk ci àdduna war a dajeeg yàlla ëllëg na yow yàlla sama payoor yàlla ne adhabtum tayibaatikum fi hayatikum dunya yow kat la ma la waroon a fay fayee naa la ko ci àdduna jeexal naa kitoo naa ak yow noos nga noosa noos ba mënatoo ko ci àdduna fu yëre solee fu yëre rafetee sol nga ko fu oto rafetee war nga ko fu kër maanaam rafetee dëkkee nga ko fu jonga ma taaroo jaxasoo nga ak moom sa yoon nekkut ci baax naam baaxut fu sàngara neexee maanaam naan nga ko fu jëw bëree ak i xuus yu mel noona yaa nga ca yow kon azhabtum tayibaatikum fi ko dunia moo tax saxaaba yi musuñoo nangu dund bu dund bu dund bu dund bu naat dund bu naat même bu lewee dañ koy ragal Omar ibnu Xataab ba mu demee di fathu fële maanaam xutsu baytul muqaddas muy Iliya Omar ibnu Xataab moo ko moo ko moo ko ubbi keroog ba mu koy ubbi dafa ebaloon armée ma ñu dem xeex heure bu ne buñ xeexee mënuñoo am ndam heure bu ne xeex nañ mënuñoo am ndam labbe ba génn ne leen bu ngeen doon xeex ba bëgg a dee du ngeen ñu wan a gañe ñun jàng nañ ko suñ téere yi ki war a hubbi suñ tata ji ki war a hubbi dëkk bi ba ma ko xoolee melokaanam nekkul ci yéen ñi ñëpp foo koo ko feeg ñëwut mënuñ leen ñoo gañe gaa yi yónnee Omar ibn Xataab bind ko leetar xamuñu woon ne sax moom la dañ doon tànt sens rek ne ko lii ñu lii la ñu bi wax ñu bëgg nag yow nga ñëw comme yaa ñu feebal mu ñëw ndeysaanam ak gëléem goo xam ne sax genn ba dafa dagg ràmm lool mbub mam daan sol da koo daax fukki daax ak juróom-ñett te mooy président wu réew fukki daax ak juróom juróom la daax yére ba mu doon sol ñëw lool ba mu ñëwee nag ndeysaanam ak yére yaag gëléem gam war ak gaa yi ne ko waaw nii nga mel ah, sa yére yi dañoo bëgg ñu solal la yëre yi taaru yu rafet sa gëléem gi nga indi ñi jëm ñi remplacé la ko fas woo xam ne wu suur la ndax lii boo ko jemee di ko attaqué tata ji rek ñoom danañ ñu xeeb te ko xeeb sa kilifa xeeb na la dañoo bëggoon daal jox la fas mu ne kon baax na Omar dëgg war sa kaw fas wa fas wa maanaam nodd ak moom xaw a cirpi Omar daane boppam ne wallaahi bi ma yéegee ci fas wi yëg naa ki sama bopp ak goo xam ne ba ma ko yàlla jégalu safara laa jëm ngir taar <laughs> ngir taaruwaayu maanaam fas wi kon nag delloowaat leen ma sama gëléem ga mu war gëléem gaag yéréem yu ràpp yaag la ca aju lépp war a dem attaqué ji tata ja nag ba mu demee ñoom dañ koo séen rek wàcc waa ji da koo séen rek génn ne kii lañ jàngoon ci suñ téere yi ne mooy hubbu quds mooy mooy hubbi quds ashadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah moo xomar ñi nekk ci seen kanisa ba jàngu ba di waxtaan ba tusubaar jot mu ne ko kon man gaa julli fii julli fii mu ne ko su ma ko fi jullee damay bañ gaa yi yoonal ko continuer di ci julli bàyyil ma génn mu génn nag ndeysaanam ca buntu église ba fa ba léegi nag fa mu doon jullee ñi far jàpp ko def ko jàkk tuddee ko masjidu Omar mook mook mook tataja ñoo taqaloo ba léegi ba demee ca Qudsu su ko defee loola kon mooy ak maandu goo xam ne Omar ibnu Xataab maanaam jàngale na ko moom tamit nag bañ paree ñu tegaleen misu yoo xam ne ay bëy yuñu lakk la mu ne ah man lii duma ci lekk indiwaale naa cere yoo xam ne dama koo wal ci lay lekk ba ñibbi damay bañ lekk ci lii bu ëllëg yàlla ne ma adhabtum tayibaatikum fi hayatikum dunia ah yéen kat seen lu neex lépp li ngeen li ngeen waroon a fayee ci xal jaana yëpp noos ngeen ko ci àdduna waaw am na koo xam ne noos naa noos a noos ba bakkanam bi fu mu ne ni mëntu ca dara la bakkanam ba laaj lépp jox na ko ko te lépp la la ko bakkan ba laaj lépp yàlla bëggul ca dara ah ku mel noonu wax dëgg yàlla bu bëggee bëgg a fayeku yàlla yàlla ne ko fayoon naa la ci àdduna nag jeexal naa ak yow tàkk ma ak yow kitoo nañ léegi nag li tuddee mu tax mu tuddee saar wi mooy maanaam ahqaaf day jàngale nit aad ña yàlla yónni woon ci ñoom yonent bu ñuy tuddee huut mu ñëw waar leen gëmuñu ko yàlla xalak leen ci ngelaw jàngoon noonu seen xisa ba ba muy ñeenti junne ni rek ñoo ca ñoo ca mucc ñeenti junne ya tamit moom moo rëddoon aw rëdd rek ne leen dugg leen bu keen génn mu dugg ci rëdd ba moom ak ñoom ngelaw li ñëw mënul leen dara ya des ñëpp ngelaw li alak leen alak seen alal seen alal jaag lañ fa bàyyi woon lépp ñu mujj alko yàlla ne ñii ñoo leen xëppoon kartan jëlee naa leen fi yéen waa Màkka su ngeen continuer ci weddi yonantu bi fa ma jaar ak niti haat ña niti haat danaa fa jaar ak yéen moo tax mu ne waskur fàttalikul aqa aadin mbokkam aad ma te mooy huut id ankara ba mu waare xaw ma woo nitam ña bil ahqaafi ca beeñ ba xuur la ca yaman soriwut sax madina waqat xalat ta mbir moomu woy na nuzuru way waaree ña yonent yi jiitu woon nañ ko nuzurum jamoon nazir min bayni yadayhi ci ña ko jiitu woon ñu ko féetee kanam wa min xalfi ña ko féetee gannaaw te ñoom ñëpp ba ñëwee dañ ne allah taxbudu bu leen jaamu ila laa ndere yàlla inni naka man aqaafu damaa ragal alaykum ci yéen azaba yawmin mbugalam bis azimun mu màgg xaaloo nitam ñe ne ko ajji tanaa ndax dang ñoo dikkal li ta fi kanaa ngir nag ñu wëlbati han alihatinaa walis jaamu suñu yàlla yi na andil ñu rek bi maa taidunaa lang ñuy dëxal in kunta ndem nekk nga mina saadiqina bokk ca way dëgguña xaala mu ne innamal ilmu ndaal xam ak mbugal mi di wàcc ci yéen kañ la man xaw ma ko indalaay fa yàlla ne wa ubaliqukum danaa leen jotal daal maa la nga xam ne ursiltu yónneef na ma bihi ca moom walakin nii li fi nekk man araakum gis naa leen xawman ngeen i nit tajhalu nañu réer ba yàkkamti mbugalam yàlla waaye fala maa raawu ba nga xamee ne gis nañ mbugal ma mbugal lan la mu ne aaridan mu nekk aw niir woo xam ne dafa gaar si bu ko defee nag mustaqbila awdiyatihim di jublu seen xuur ya ñu foo ne taw la xaaloo ñu ne haada lii de aaridun niir la mumtiru naa woo xam dafa ñuy tawal bal bu ko defee nag aad na leen déeréet bal li fi nekk huwa moom kay mastaajaltum mooy mbugal mi ngeen yàkkamti woon bi ci moom riihun ngelaw la laa wax badal la fiiha nekk na ca ngelaw la azabun mbugal alima may borom ak méttital ngelaw loo xamatu damiru dana bombardé ku la seen lépp laf bi am rabbihi rabbiha ci ndigalal boromam su ko defee nag fa asbahu xëy nañ laa tura dee fut gis ilaa masakina lul jeexitalu seen dëkkuwaay ya yéen a tukki di ko romb kazalika naka noonu mak ma mbugalee leen faye leen ko na gis la ñuy faye ñun yàlla xaw ma nit ña mujj mi nañay kàccoor kon niti haat ñaa nga noonu ba ñu weddee seen yonantu ba fii la yàlla jaar ak ñoom waxoon naa la ko toog nañ lu man ñetti at amuñ nawet ñu toog nag yàlla ji xiin xiin wu ñuul kook commencé nag rëdd euh, commencé ngelaw ngelaw la sedd xam nga ne ab baykat boo xamee ne ma nga jilam yaakaaroon ci ci gerte yëpp tabaarakallaahu ci àll bi euh, yàlla ji tawut dana jaaxle dana jàq su gisee aw niir dana kontaan dana békk ba mel ni góor ak siise siise ga ndeysaanam lim amoon ci jiwu gerte yëpp da koo dugal ci biir biir suuf si ñu toog lu mat fukki fan fukki fan ak juróom tawut mu ñëw a ñëw ba ci digg pénc ma laaj leen ne leen waaw yéen kenn ñaqut ñu ne ko wallaay kenn ñaqut mu ne da ngeen a soxor rek waaye wax dëgg yàlla ñaq na nag tàng na nag maa ngi ni ñaq bay bëgg a dee <laughs> lool lépp rek kenn ñaqut sax waaye rek mi ngi yaa mi ngi bëgg ni ngi ne ko ñaq nañ rek ngir ngir ngir mu yaakaar aw xiin ñoom tamit lool moo leen dal ñu toog rek seen xiin war a dë rek ñi commencé génne ah haada aaridun mumtiru naa de yàlla ne bal huwa mastaxjal mastaxjaltum de léegi nag noonu rek ñi seen niir wan ak niir wan ak commencé di yëkkati seen gëléem ya ñu ne ay niir yu mu dara ngelaw dara la ñu mën a lut ñu commencé suul seen bopp waxoon naa la ko kenn ku ne suul sa morom suul sa jabar ba mu tollu sa ndigg li ndaw ndaw deegu metti xam naa ne ngelaw luy luy yëkkati ay gëléem di daane ay attaques du ngelawal jàmm de ngelaw la nag yàlla wax na ko saxaraha alayhim sab'a layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuman fa tara al qawma fiha sara loolu la am juróom-ñaari fan la diire euh, su ko defee nag ci loolu lañ nekk ñoom ba mujj ñoom ñëpp alku yàlla na nag bu ngeen ma continuer tamit fa ma jaar ak gaa yi laay jaar ak moo tax mu ne wala xadd makkannaahum wallaay sa dëgg-dëgg dëgëraloon nañ niti xaat ña fii maa ci dëgëral goo xam ne in makkan naakum déet ñi leen koy dëgëral yéen waa Màkka fii ci moom kartan gin amoon ak alal jiñ amoon yéen amu leen ko wa jaal naa defoon nañ lahum ñeexal leen saban ay dégg wa absaaran ak ay gis wa afidatan ak ay xol fa maa ax naa jëriñut anu walis leen samxuhum seen dégg ya wala absaaru caaken seen gis ya wala afidatu caaken seen xol ya min seen ci dara id kaanu bañ nekkee xadun di weddi bayat lay ci aaya yàlla yi wa xaqa xëy na bihim ca ñoom maakaan lañ nekkoon yëstation di yëj ji bihi ca moom wala qad ahlaka naa walaay sa dëgg-dëgg xalak nañ maa hawlakum la leen wër minal ci ay dëkk nit yi luut ña yéen a romb seen dëkk ya nit yi samuuda ya nit yi xaat ña wa saraf naa baamu nañ ay yoon aayaati kawteefu yàlla yi ci yéen laallahum mbastane ñoom yarji'uun nañu dellu te mënuñu ko falaw laa nasrahum lu taa maanaam jañal leen lazina ñag jañal leen mbugalam yàlla nga xam ne ittaxasoo jàpp nañ leen min doon laay wali si yàlla qurbaanan ñi def leen ñu leen di jegel ci yàlla alihatan ay yàlla laa wax badal la bal li fi nekk dalloo ñoo ngi sànku na xeen walis leem wa dalika loolu eh, ifkuhu mu ne wa dalika mooy seen duut mooy seen ak nar wa maa kaanoo ak la nga xam ne kon yaftaruuna di ko duut kon loolu la yàlla wax ak gaa yi yàlla ne ne kartan gi ma joxoon xeet ya leen jiitu woon ca niti xaat ña ca niti samuuda ya genn wàllaati genn wàllam amulu leen ko waaw kon ku mën a mbugal ponkal bu ne mën naa bu ne danaa mbugal koo xamee ne nii ak ak la nga war koo mën a gëm yéen ay nit ñu yàccaa yar la sax ngeen ke ñooñu noona ñooñu defaloon na leen ay dégg ak i gis waaye seen dégg yaag jëriñ yi jëriñu leen dara xelaatuñ ci gisuñ ca dëgg moo tax ñoom ñëpp alku nañ kon fa ma jaar ñoom laay mujj rek jaar ak jaar fa ak yéen aaya ji tegu ci wa i sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'ana aaya la joo xam ne yàlla ngi ciy jàngale histoire u jinne yi histoire u jinne yi nag ay yooni yooni yoon la ay yooni yon ci la jinne yi yonent bi xam ñoom rapport di wax ak ñoom di leen xoo ci lislaam ba ca njëkk mooy bi ngeen jàngoon bi Xadijatu génnee àdduna ngi teg si ñetti at ñetti weer yonent bi ba départ fi bàyyi ko Makka dem Taayif di leen xooyi ca lislaam ay nijaayam fa lañ nekk ñu nekk ku ñàkk kër bàyyi seeti kër nijaay ñooña dem boole mag ñu jëmut fenn ña ak xale ñu yarut ñu ak jigéen ñu xamul kilifa ya koy sànni ko yuuxoo boole ko xaj ya lu mat weer mu ànd ak Sayd ibnu Xaarisata ñu sànni ko ba nàccal tànk ba Sayd ibnu Xaarisata ñëw waaf ci kawam ba demee ba ñibbi nag yegg si place bu ñu tuddee naxlatu yàlla ne ko ah sa nit ñi dañ laa weddi tey jinne yi gëm la de jinne yooya fekk ko fa ba ca naxlatu jaayanteeg moom moom nag ñu ne mooy mooy mooy bu nu soolu aaya ji su ko defee nag ñooye jinne juróom-ñaari jinne lañu woon kenn ka mun sin naasin sarafin saasiro amir amir ak ak laxqa bu maam sëriñ Tuubaa ngi leen di wax ci benn xasida benn way ne min maxsharil jinni nazamtu nafara ashaaba xayril xalqi minhum xufira munsin wa naasin sarafin wa saasiro wa amir ibnu jaabir wa naasiro wa saahibu sabati fa huwa laxqabu fa haawulaay xaafizuhum laa yuqrabu mooy juróom-ñaari jinne yoon njëkk a jaayanteeg yonent bi ca naxlatu kooku mooy bu njëkk bi beneen bi nag yonentu dafa mos a toog saxaaba ya wër ko mu ne waaw yàlla hebal na ma naa wooyi jinne ci lislam kuy ànd man saxaaba yëpp sëgg kenn ñemewut a siggi jinne moom ñu ko ñeme bëriwut kenn ñemewut a siggi mu ne kuy ànd ak man ñëpp sëgg ma nu ma Mas'ud rek moo siggi ne ko bàyyil ma jug ànd ak yow ñu ànd nag jëm ca benn xuur ca xuuri màkk ya fu ñu tuddee Shaabul Hajuun ba ñëwee nag ba ca foofa yonentu bi rëdd aw rëdd ne ko Abdullah ibn Mas'ud bul génn rëdd wii de toogal fii xaar ma boo génnee rëdd wii xalaa xiraa ngay gisee ak man waaye dootu nekk ci àdduna dem mu ne yonentu bi dem ma koy séen fu mu taxaw am na ñu koy wër maa ngi dégg coow yi ñu ngi koy wër ba gisatuma ko dem naa ba bëgg a génn rëdd wa pour dem xettali ji ko mu jigi mooy comme lam ma wax rek ma xalaataat ko daal di toogaat mu yonent bi nag daal di ñëw mu ne ko man maa ngi doon dégg coow lu ko waral mu ne ko waaw jinne yi ñoo doon jaayanteeg man fukki junne junne fukki ak ñaar dafa xamoon ku ñu rey ci ñoom ñi may ñi may pour ma ne naa leen xatte nag ma leen doon xatte nag ci alquran ak ci dëgg tey nag bis ni ki tey fukki junne ak ñaar ci ay jinne maanaam jébalu nañ dugg ci lislaam mu ne ko nag lii moo doon yoon kooku moo jinne yi nasibiina yi mu ne ko jinne yi nag nasibiina yi lañ dëkk ñu nga ab dëkk la ca yaman foofu lañ bàyyee ko ñëw tur ci lislaam beneen yoon bi yonentoo toog ca madinatul munawara ànd ak anas menn màgget ñëw di sukkandiku na muy waxee yonentu bi ne kooku kàddu gindi la may leen ko mu ñëw yonentu bi laaj ko noo tudd mu ne ko laqis kuy sa baay mu ne ko sësatat laa ci iblis iblis daal sama digganteeg iblis ñaari baay rek ñoo fa dox ak ñoo gudd fan mu ne ko waaw ñaata xat nga am mu ne man baa dina sosoo ba léegi maa ngi fi di ni ma fi yàggee keroog bay xaabil di rey xaabil ko jottali xeer wa fekkee naa ko ba yenoon yonentu yàlla noox di dugg ca gaalam nga fi la ma fekk ibrahima fi la ma fekk ti yàlla moussa sax jàngal na ma ay saar Iisaa jàngal na ma ay saar wax na sax naa la nuyu waxoon na ma naa la bàttali am nuyoo ci yow tey nag mu ne ko yaa bon fii yëpp jaar nga fi mu ne ko nag lu bon loolu laay tuub tey damaa bëgg a dugg ci lislaam mu ne ko waaw na nga guddee fan loolu seen yëre yi foo jëlee yëre yoo doon sol mu ne ko sa xeet wi ku ca mooy yàlla rek ñun mooy nekk suñu yëre ndeke sa yëre lu muy bees boo ca xasee mooy yàlla rek ràpp na yàlla jël ko jox ko jinne yi yére yi jinne yi dañ bëri yëre ma ne jinne yi ñooy bëri yëre kon ndeke yow sa yëre bi lu muy rafet rafet boo ci jëwee mbaa nga fen ci mbaa nga trian ci rek ràpp na yàlla jël ko jox ko jinne yi mu ne ko loolu mooy suñ solaay kon suñ yëre yi nañ ciy bàyyi xel nañ ciy bàyyi xel li ko mooy dañuy yokk jinne yi yére rek li nga naree yokk jinne yi yére nga yokk néew ju doole yi ay yére moo ëpp doole léegi nag aaya yooyu lay wax ci laay daanee xam naa tombeeg waxtu wi jeex moo tax alquran ne wa fàttalikul isaraf naa ba ñu wëlbatee ilayka jëm ci yan jëm ci yow nafaran kuréel minal jinne ci jinne yi yastami'un ngi dañuy déglu alquran alquran falammaa hadaruhu bañ ko teewee ci yonantu ba kaaloo ñoom jinne yi ñu ne ansi ansitoo xerawlu leen falammaa qudiya ba nga xamee ne sottaleef na yonantu bi jàng ba jeexal walaw ñu dëddu ilaa qawmin jëm seen nit ñi mun fi ne di way waare ñu xet si nañ seen nit ñi xaaloo ñu ne yaa qawmanaa yéen seen nit ñi xée yéen suñ nit ñi innaa naka ñun samee naa dégg nañ kitaaban téere unsila boobu ceef na ko min ba'di Muusa gannaaw Muusa musaddiqan mbir muy aji dëggal li maa bayna yadayhi ñeel la ko jiite woon ci ay téere yahdi téere boobu dana gindi ilal xaq jëmee ci yoonu dëgg wa ilaa wa ilaa tariqin jëmee ci yoon tamit mustaqim wu jub kocc dana gindee jëmee ci dëgg jëmee ci yoon wu jub yaa qawmanaa xée yéen suñ nit ñi aji boo na ngeen huyu daa'iya laay kiy xoote jëmee ci yàlla wa aminoon na ngeen dëggal bii ci moom yaxfir jéggal làkkum ñeex leen min sunubikum leen seen i bàkkaar toppaanga ye bokkut ci wa yujirukum dana xetti min azabin ci mbugal alima may bërëm ak wa man képp koo xam ne laa yujibu moom du huyu ay kay xoote jëmee ci yàlla di yonantu bi kooka defa laysa bi mu'jisin mënta rëcc fi mënta rëcc yàlla fi ardi ci suuf wa laysa lawoo déet di ko ñaal min doonee ku dul yàlla awliya ay xarit ulaayka yooye gaay fii dalal wax su ko defee nag awalam yaraw yàlla ne xanaa gisuñu xanaa xamuñu ana laa naka yàlla si mooy buur ba nga xam ne xalaqa bind na samaawaat juróom-ñaari asamaan wal arda ak juróom-ñaari suuf walam yaayi lottul bi xalqina seen ak bind yàlla moomu tamit lottulu ko bi xaadiri muy aji hattan xalaa an yoxu mu dundal mawta way deeñi balaa a kay innahu naka moom xaadiru aji hattan la alaa kulli seen ci lépp lëf wa yow ma yuradul fàttalikul bis boobu def na gaaral la si na ñi nga xam ne kafaroo dañoo weddi ala naari ca safara su ñëwee nag yàlla ne alaysa haasa ndax déet alquran ji bil xaqi muy dëgg xaaloo ñu ne balaa a kay wa rabbinaa gëñ nañ suñu borom yi qaala sama borom ne fa zuuqoo mos al azaaba mbugal mi kuntum muy sababu la nga nekkoon takk furoon di ko weddi yow nag yonantu bi fasbir na nga muñ kama sabara naka la muñee ulul azmi boromu dog yi mina rusuli ci yonantu yi wala tastaajil bul yàkkamti seen mbugal lahum ñeexal leen daanaka ñoom yow ma yaroon na bis ba nga xam danañu gis maanaam maa yuwaat li nga xam ne leen ko day mel ni lam yalbasoo musuñu sax illa saatadul benn waxtu min naarin ci bëccëg balaa kun alquran ji ak gotal la xabar la juñ fi xasaf muktadama fa hal yuhlaku ndax def na xalak ilal qomlatul nit ña faasiqu nañu génn toppee muy kàccoor ya saar wi jeex na tombeeg waxtu wi jeex lii ma ciy tënk rek mooy da nga yi ñoo jox alquran xaqam dama ne kon ñun tamit nañ jox alquran àqam jinne yi jox giñ jox alquran xam moo tax bañ déggee alquran lu ñu wax ansitu waaye waaye xeraw lu leen ngeen déglu fu ñuy jàngee alquran kenn war ta coow waaye léeg-léeg nga dem ci place yi jàng alquran déglu leen déglu leen di bëgg a ray nit ñi kàddu yàlla bu xasee jug genn kàddu warta jugati moo tax jinne yi bañ déggee alquran rek ñu ne ansitu waaye tamit ñaareel ba tamit ba ñu jotee dëgg ji muy alquran fa lama qudiya wala ila qawmil munzirina la lañu am ak new ci aaya alquran ñu dem jotal ko ñi nga xam ne jot ci ci ñoom ñu dem di leen waar ne leen ñëw leen ngeen wuyu ji kiy woote jëmee ci yàlla li muy woote dëgg la jàpp leen ko topp leen loola kon nañ roy déglu alquran ak xeraw la koog jëfee koog woote jëmee ci ci jinne yi waaye tamit yonentu yàlla nga koy muñ loo ne ko gaa yi la jiitoon ulul asmi noox muñ na coono bu ne daj na ko junnee xat ngay xoote yu manqué juróom fukk bët bu seen ñi dóor la léemu la bu dóor ya seddee nga ñëw xoote xat sa sa sa sa sa maam Ibrahima muñ na muñ na bañ sànni ko ci safara wi xet li gu ne ñëw bàyyi ko mu ne déedéet ilmuhu bi haali yughnini an suali yonentu yàlla Moussa muñ na gis nga ko fi mu jaar ak Firawna ñeent fukki xat heure bu ne mu koy xoo ak jaamaarloo gi mu def Firawna ba xëy yàlla labal ko yonentu yàlla Iisaa muñ na bañ bëggoon koo rey ci wa maa qataluhu wa maa salabu walakin subbiha lahum kon fasbir kama sabara ulul asmi min rusul ñooñu ñooy ulul asmi yi gën a ëpp daraja ci yonantu yi mu mel ni saar wi jeex na ci suratul tombeek waxtu wi ñi mayoon jeex lépp luñ ci xam yàlla nañu yàlla may kartan ngi jëfee ko lépp luñ ci xamut yàlla ñu ko yàlla xamal yàlla boole jéggal ñu yàlla boole jéggal leen yàlla boole yërëm ñu te yërëm leen yërëm mboolem julli ñi fu ñu mën nekk yàlla wàccee barkeeb alquran ci ñun wàccee wàccee ko ci borom kër gi Seydi Mouhamadul Amin mi ñu may occasion bi wàccee ko ci wal fajiri mu gën a mu gën a saawaan baawaan barke yi gën a bëri milliards yi gën a sotteeku wàccee ko ci réew mi def jàmm def xéewal ci mboolem réewu adduna bi yi tàkk yëpp yàlla na ko yàlla fay ci barkeeb Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi sant nag doomu soxna yi nekk tey ci suñu plateau bi